waaye sama xol nag moo sot ba mënatuma ko mën ngir ñaari yëpp benn mooy sëriñ bii fi ne di sëriñ Tuubaa nekkal ko fi ma xam xolam ak yéeneem ci bindee fi ak ci taalibe bi sëriñ Tuubaa yi xamin mbir mi xew fan yii ba indi coow lii la mu ci wax ak kilifa réew mi njiitul réew mi xam ne waxee responsable dëgg la